ci teewlu bi ngeen ñuy teewlu tey nag ñu am comme gann euh, monsieur Samba Ndong au conseil des collectivités territoriales la nekk responsable politique bu APR fii ci Biscuiterie yi nekkit président bu convergence des jeunes cadres républicains muy COSECAR fas yéene waxtaan ak moom ci actualité actualité politique tànn bi nga xam ne njiit réew Macky Sall tànn na ko kii di Amadou Ba mu war a jiite coalition Benno Bokk Yaakaar coow li nga xam ne jot na se am ak loolu lépp daal incha allah fas yéeneen ce seq ak moom waxtaan waaw balaa may sori ma bàyyi ko mu nuyonteeg mbokk internet yi. asalaamaaleykum internet yi maa ngi leen di nuyu bu baax leen di sant leen di gërëm di ñaan kilifa diine kilifa aada gudd la wér ak wér la di koy ñaanal président Macky Sall di koy ñaanal aussi suñu candidat di koy ñaanal sénégalais yëpp macha allah. monsieur Ndong gannaaw xaar bu yàgg njiit réew Macky Sall mujjee tànn ki nga xam ne moom mooy Amadou ngir mu teewal mouvance d'abord lan moo waral xaar bi yàggoon loolu. waaw bon xam nga agenda président dafa dafa chargé te président soo ko xoolee temps yooyu yëpp nekku fi woon mu ngi doon dem di ñëw di xeexal Afrique di xeexal Sénégal boo yàlla def nag euh, mu tànn ki nga xam ne mooy suñuy candidat ensuite il y avait des candidats la candidature fallait que mu def nekk une une candidature inclusive wax waxtaan ak ñëpp muy waa APR muy waa coalition Benno Bokk Yaakaar waa mouvance présidentielle ak ñenn ak ñeneen donc loolu nag c' était pas une mince affaire boo xamante ne on on doit le bâcler comme ça parce que le candidat naturellement unanimité yombul mais au moins la majorité les 90 pour cent nekk koo xamante ni ànd ak moom loolu lañ doon xaar incha allah te loolu le but a été atteint donc looloo waraloon lenteur yi mais c' est dans l'ordre des choses tout à fait normal. noonu président ak fu jaar ci àdduna ci politique xam na ne unanimité amul fenn yàlla mi ñu sàkk amul unanimité am na ñu koy jàmm am ñu koy jàmmu jaamu yonent bi am ñu ko ñuy julli am ñu julli donc loolu c'est c'est évident même suñu biir kër yi sax unanimité amuñ ko fa parfois da ngay def dara gars yi contesté loolu du ñàkk. c'est dans l'ordre des choses mais ça, il faut savoir dépasser et savoir raison garder. non du question de sóor. non du question de sóor président du sóor yooyu parce que loolu c'est prévisible. loolu mënu ñàkk ci àdduna képp kuy def politique xam nga ne loolu mënu ñàkk ci àdduna donc loolu c'est pas quelque chose à à prévoir c'est une évidence. c'est une évidence maintenant ce qui est important mooy ne ku ku mer nga woo ko waxtaan ak moom raisonné ko waxtaan ak moom mu dépasser ses pour que ñun ñëpp ñu ànd doon benn. ce qui est important dans ça mais le reste c'est pas important te loolu ex euh, ça euh, n'expliquait pas la lenteur lenteur bi mooy ne l'agenda du président est trop chargé c'était ça c'était ça en réalité kontaan ci di ko koy ñaanal mooy Amadou Ba yàlla na nekk le cinquième président du Sénégal il a les compétences il a la pertinence il a la perspicacité la pugnacité et le sens et l'amour et il a la confiance di boss donc li fi am yëpp mooy ne ñun ñëpp nañ taxañu nekk ci ginnaawam jàppale ko d'une manière indéfectible avec abnégation et loyauté pour que incha allah le but et les objectifs soient atteints loolu kese mooy wax ji ma koy lancé nag un appel solennel à tous les responsables de la coalition Benno Bokk Yaakaar et de la société civile et tous les sénégalais d'une manière générale ñun ñëpp ñu ñëw jàpp ci xeex ki pour que incha allah au soir des élections présidentielles du de de de de de de 2024 ñu gagne avec plus de 58 pour cent moom lay ñaan te mën na nekk parce que Amadou Ba c'est un homme de paix de symbiose et c'est l'illustration parfaite de l'instauration de la paix et de la stabilité. mais qui ne fait pas le, le consensus euh, d'autant plus que gis nañ euh, coow li tàmbali na euh, ba sax démission tàmbali ci am. non consensus moom amul fenn ci àdduna. xam nga astaf astaf la unanimité amul fenn ci àdduna consensus am na consensus am na te ensuite ñi nga xam ne dañoo mer président mu ngi leen di waxtaan mu ngi waxtaan ak ñoom di leen di raisonner pour que ñu revenir à leurs meilleurs sentiments c'est tout à fait normal li may wax c'est tout à fait normal François Mitterrand moo leen wax ne choisir c'est souffrir donc c'est tout à fait normal lu def choix ñu am ñu mer am ñu kontaan mais ku ci mérite na nga dépasser sa ego xam ne c'est la loi de la nature ce qui nous unit est beaucoup plus important que ce qui nous divise et nous avons notre avenir en commun, nous avons politique en commun, nous devons préserver les acquis démocratiques et les acquis économiques. Nous devons préserver les acquis démocratiques et les acquis économiques pour que vraiment le Sénégal soit placé en aval en amont de tout ce que nous faisons afin de pouvoir mettre les jalons du développement intégral et durable afin que tout émerge dans les meilleurs délais. et ce qui est l'objectif c'est ce que est-ce que lu euh, n'a jamais posé de poids. non non ah, wax déglu ma Aly Ngouille Ndiaye il a dans sa commune il y a 19 maires les 16 maires sont avec nous et le restant beaucoup de gens le reste à part lui. dina leer Aly Ngouille Ndiaye du du dépasser parrainage du dépasser parrainage Aly Ngouille Ndiaye il ne va même pas dépasser le filtre du parrainage. waaw tey ku mel ni Aly Ngouille Ndiaye euh, monsieur Ndong munoo ne munoo ne il ne représente pas quelque chose ci li nga xam ne moom mooy euh, biir APR ak au sein de la coalition. non il représente quelque chose loolu c' est une évidence moom amoon na confiance président te il est maire mais quand même loolu. nekk maire taxul ngay prétendre à être un président de république non kooku moom se mélanger les les serviettes. politique bu ne nag homme politique bu ne nee nañ jaaykatu bitigu mbagg bu ne magasin moo nekk si si si gem. bañu ma loolu bañu ma loolu mais na nga na nga am na nga am dayo bi moom amagu dayoo le manteau le manteau di costume du président ah est très large sur ses épaules dina leer nee naa la parrainage bi du ko jàll. pare naa du ko jàll nañ ñëw am na place si biir coalition bi nañ ñëw bàyyi ay problème égo donc président mooy am confiance ci ñi jox ko mais su joxee nit man mënuma nekk ak yow ñu ne commune mu président jox la may mer pourquoi may mer amul njëriñ naa la ñaanal le malheur que l'on choisit sur la tête de quelqu'un préfère elle-même choisir sa propre victime yéena nekk ma cay fanaan na bàyyi ces problème d'égo là ces problèmes de narcissisme la muy ñëw ànd ak ñun ànd ci coalition bi bokk xaj na fi am na fi dayo am na fi responsabilité am na fi ñu fi ko fi respecté nay ñëw toog sinon il va mordre la poussière du am dara lu xam na ko du am tous parce que la plupart de leurs militants ce sont les militants du président loolu c'est une évidence donc loolu nag xam nañ lépp yéen i wax yi nag duma ko fi wax mais xam nañ lépp qu'il ne franchit pas le Rubicon. peut euh, bu Aly Ngouille Ndiaye moo fës mais am na yeneen nit ñuy dégg ñuy yëngatu ci suuf d'ailleurs Mame Boye Diao tey mu ngi doon tenir conférence de presse ñàkkul ne xamuñ ñu fay euh, jugee nekkul ne il n'est pas le seul con contest euh, contestataire est que loolu mun lay indil ay jafe-jafe tey ñu jëm ci élection li may wax na ñëpp ñëpp ànd doon Mame Boye Diao Abdoulaye Bibi Baldé nga fa le ministre qui comment dirais-je le ministre de l'enseignement supérieur mu ngi foofu noonu donc na bàyyi caaxaan. na bàyyi caaxaan non xam nga nit da ngay su day xam lekkam mais tojul fenn maam booy jaaw maa ngi suñu demoo élection présidentielle dama koy gagné man mii sama ndong man lañ gën a xam ne moom te responsabilité yi ma ko li ma mën a mobiliser mënu ko mobiliser su nangoo maag moom ñu woote concurrence mobilisation. maam booy la gën a siiw de sama tamit. ma ne la responsabilité yi mu am aw ma ko. loolu ah, dama koy nangu moyen yu mu am yoru ma ko mais xam naa ne li ma mën ci biir Sénégal mënu ko fi hmm. loolu man xam naa ko te moyen yu mu am su ma amoon moyen bu ak at yu mu am su ma amoon mu xam ne dayoo yi bokkul na xam boppam gis nga fii ku tëdd xam nga ku la mën mais nekk fii di autoflagellé wu di woot di di di di di def di créer buzz amul njëriñ nañ bàyyi seen caaxaan yi te ñëw rangé wu ñu liggéey maam booy am na fi place ñu fa am Aly Ngouille Ndiaye amee ñoom ñu am place keneen ku le militant le plus na place ci biir benn bokk yaakaar loolu na ñëpp ànd doon benn man gisuma fii lu ci war a indi ay détails. yaa ngi doon wax mbirum waxtaan njiit réew Macky Sall démb wala boog dalal na en tout cas Abdoulaye Daouda ngir ñu waxtaan mais pour fësal rek ne wane ne mbir mi responsable yi yi yi yëngu-yëngal du Aly Ngouille kese nee nañ ci biir waxtaan boobu sax euh, Abdoulaye Daouda Diallo il s'est barricadé dégg nañ même demandé na à ce que ñu jox ko poste premier ministre bi nga xam ne amoon Ba war na ci démissionné ndax am nga xibaar ci loolu. wala noo dégg naa dégg na dégg naa ay post premier ministre ainsi mais loolu ça la émane du président Macky Sall la responsabilité du président Macky Sall moo am pouvoir discrétionnaire loolu mënu ma ci wax dara mais Abdoulaye Daouda Diallo lu ma wax Aly Ngouille Ndiaye ak Mame Boye Diao moom laa koy wax xariti président Macky Sall yàgg nañ cheminer ensemble du bu mu xaar bo moment yi muy trahir. son ami de longue date. loolu trahison nga bu mag haute trahison haute trahison donc loolu daal lay wax de di wax ne am na loo xamante ne rafetul entre xarit entre camarades nañ ressaisir ñëw ànd ak président Macky Sall jàppale le candidat qui est choisi par le président Macky pour que ñu élire ko en lors des élections présidentielles 2024 loolu daal loolu wax. yenn détails duma ci dugg parce que nous avons besoin de tout le monde on fédère on doit nous nous devons nous unir dañoo war a yaatal suñuy dënn fàtte dépasser surpasser ñëw pour def un réseau pour conserver la le pouvoir ban attitude la ñi nga xam ne la njiit réew Macky Sall war a am ci en euh, face euh, ak contestataires yooyu ñenn ñu ngi naan euh, il doit utiliser la carotte ñeneen la bâton yow lay wax. non ñaar moo am bâton et carotte da négocier. su négocier sur le têtu mais nga nga nga demat nga dem à la vitesse supérieure mais man je priorité bi may joxe ak li may joxe muy nekk loo xam ne c'est une primauté na ñëpp waxtaan na ñëpp waxtaan na ñëpp waxtaan pour jubbu na ñëpp waxtaan pour jubbu pour ñu fédérer ñëpp ñu doon benn loolu su mun am ba mun am président jël ay responsabilité mu jeex tàkk donc suñu mujj nee nañ am na ay ténoru APR yoo xam ne fi mu nekk nii ñu ngi toog bu dara ci suuf Euh, ngir euh, mën a daal jàmmaarloo ki nga xam ne moom mooy euh, moom mooy Amadou Ba te ne ñu am doole lañ te am xaalis nekk ay ténor ndax loolu mun leen indil gàllankoor. non ténor yi man bi président tam na ko muy Amadou Ba. non ñeneen ténor ñoo xam ne ñoo xam ne membre fondateur ñooñu gars yi ñu leen di woy ténor man membre fondateur la mën naa wax ne man ténor la parce que am naa décret bu ñu am am naa responsable bu ñu am si fu ma nekk. mais man bu construire ma sama bopp ca nor man je me construire comme un militant jafe-jafe mënu fi am te jafe-jafe du am te maa la ko wax tey incha allah dinañ ko ci 2024 nga ñu defal ma interview ñu validé li ma la doon wax waaye sant rek pour que ñëpp doon benn ñu ànd ak Amadou Ba le meilleur candidat

ñu ngi lay jaajëfal monsieur Samba di fàttali ne kon au conseil des collectivités territoriales nga nekkit euh, responsable APR ci commune yi euh, nekk président bu COSECAR di convergence des jeunes cadres républicains ñu ngi lay jaajëfal sa disponibilité. jaajëfal itam mbokk internautes yi ñu doon bàyyi xel di leen jox kon dig lu yàggul dara rek. jaa ngeen jëf